jëf ya juróom naka noonu nit ku tudd ananiyaas ànd ak safira jabaram jaay làccu suuf mu dencal boppam benn cër ca njëg ànd ca ak jabaram ba noppi mu indi cër ba ca des teg ko ci loxooy ndaw ya bi mu ko defee piyeer ne ko ananiyaas lu tax nga bàyyi seytaane dugg la ba fees sa xol ngay wor xel mu sell mi ci li nga dencal sa bopp benn cër ci njëg gi bi mu jaragul ndax moomuloo ko woon te bi mu jaree ndax yilifuloo woon njëg gi lu tax nga fas ci sa xol def nii waruloo nit ñi waaye yàlla nga wor bi ananiyaas déggee baat yooyu mu daanu dee ñi ko dégg ñépp tiit ba ni nërëm noonu waxambaane ya jóg ñu sang ko yóbbu ko jébbal ko yàlla ñetti waxtu gannaaw ga jabaram dugg si fekk xamul la fa xew piyeer daldi ko ne wax ma ndax lii mooy njëgu tool bi mu tontu ko waawaaw lii la ci kaw loolu piyeer né ko lu tax ngeen ànd di diingat xelu boroom bi ñi denc woon sa jëkkër ñu ngi nii ci bunt bi te dinañu la yóbbu ca saasa mu daanu ci tànkam dee bi waxambaane yi agsee nag ñu fekk ko mu faatu ñu yóbbu ko def ko ci wetu jëkkëram noonu tiitaange ju mag tàbbi ci mbooloom ñi gëm ñépp ak ñi ko dégg ñépp bi loolu amee ay kéemaan ak ay firnde yu bari di xew ci nit ñi jaare ci loxooy ndaw ya ñépp di booloo ca werandaa bu suleymaan ca kër yàlla ga te kenn ci ña ca des ñimiwula booloo ak ñoom waaye nit ñépp di leen màggal moona ay nit ñu gën a bari góor ak jigéen di gëm borom bi tey taq ci ñoom nit ñi indi sax ñu bopp ca mbedd ya teg leen ci ay lal yu ndaw ak ay leeso ngir bu piyeer di jaar doonte takk ndeeram sax yiir ñenn ci ñoom te it nit ñu bari dajaloo jóge ca dëkk ya wër Yerusalem ñu indi ay jarak ak ñu rab yu bon sadd te ñoom ñépp daldi wér booba saraxalekat bu mag ba jóg ak gàngooram gépp maanaam kuréelu saducéen ga fa dëkk ki ñaan gu mag jàpp leen ba ñu jàpp ndaw ya tëj leen ca kaso ba waaye ci guddi malaakam borom bi ubbi buntu kaso ba génne leen ci biti naan dem leen taxaw ca kër yàlla ga te xamal nit ñi lépp lu jëm ci dund gu wóor gi bi ñu déggee loolu ñu dugg ca kër yàlla ga ci suba teel daldi waare bi ñu koy def saraxalekat bu mag ba ak ngàngooram ñëw woolu kuréelu àttekat ya maanaam mbooloom njiiti bànni israel gépp ñu yónnee ngir jëli ndaw ya ca kaso ba waaye bi wattukatu kër yàlla ga ca kaso ba gisuñu leen fa ñu daldi dellusi yégle ko ne fekk nañu kaso ba tëju bu wóor ak wattukat ya taxaw ca bunt ya waaye bi ñu ko tijjee kenn ci biir bi kilifaak wattukatu kër yàlla ga ak saraxalekat yu mag ya déggee loolu ñu daldi ciy jaaxle lool ñuy laajante fu lii di mujj noonu bedewaay ñëw yëgal leen ne nit ñi ngeen tëjoon ñu nga taxaw ca kër yàlla ga di jàngal nit ñi ci kaw loolu kilifa ga ak wattukat ya dem jëli leen waaye boolewuñu ci fitna ngir ragal nit ñi sànni leen ay xeer bi ñu leen indee ñu dëj leen ci kanamu mbooloo ma saraxalekat bu mag ba laaj leen ne ndax terewuñu leen ci lu wér ngeen waare ci tur woowu te fi mu ne dajal ngeen Yerusalem ak seen waare rax ca dolli yéen a ngi nuy fexe taqal deretu nit kooku waaye Piyeer ak ndaw ya tontu leen ne déggal yàlla moo gën déggal nit yàllay sunuy maam dekkal na yéesu mi ngeen boomoon ci wekk ko ca bant ba te yàlla yëkkati na ko ci ndejooram mu nekk buur ak musalkat ngir may bànni Israyel rëccu ba mu baal leen seeni bàkkaar seede nañu loolu nun ak xel mu sell mi yàlla may ñi koy déggal bi ñu déggee loolu ñu mer ba seen xool di dagg ñu bëgg leen a rey waaye amoon na fa nit ku tudd Gamaliyel bokk ci tarixaab farisiyen ya di xutbakat bu tedd ci yoonu musaa mu jóg ca mbooloo ma santaane ñu génne leen tuuti bi ñu ko defee mu ne leen yéen mbokki israyel moytu leen li ngeen di def nit ñooñu ndaxte bu yàggul tëddaas jógoon na mbubboo daraja ba lu ñeenti téeméeri nit takktoo ak moom tëddaas moomu nag rees na ko te ko toppoon ñépp tasaaroo ba seen pexe nasax gannaawam it yuda mu galile jóg ca jamono jooja ñu doon bind waa réew ma mu jógloo nit ñu bari ñu ànd ak moom moom itam dee na te ay nitam ñépp tasaaroo léegi maa ngi leen di wax génn leen ci mbirum ñooñu te bàyyi leen ñu dem ndaxte bu seen pas-pas mbaa seen jëf dee pexeem nit dina yàqu waaye bu fekkee ni ndogalu yàlla la du ngeen ko mën a fanq ngir ragal la jànkonte ak yàlla bi mu waxee loolu ñu fekk ko ci xalaatam ñu woo ndaw ya daldi leen dóor ay yar tere leen ñu waxati dara ci turu yéesu ba noppi bàyyi leen ñu dem ndaw ya nag jóge ca kanamu kuréelu àttekat ya bég ci li leen yàlla jàppe ñu yeyoo yenu toroxte ngir tur wa noonu bis bu nekk ca kër yàlla ga ak ca kër ya daawuñu noppee jàngale ak a xamle xabaar bu baax bi ne yéesu mooy almasi bi